fi euh, a jox par euh, gisuma conseil bu may jox Guy Marius Sagna bu ma rafetluwul taxawaayam parce que moom xam nga nit bu taxawee ne man damay def ngir askan wi ci fu mu mën a féete rek dañu war a rafetlu taxawaayam muy Guy Marius Sagna di enseignant bi nga xam ni moom sacerdoce la def njàngale ma di imam bi taxaw ci koñ bi ne moom dafa bëgg nit ñi seen diine mu teg leen ci siraatal mustaqim gis nga réew noonu lay doxee il faut que les bàyyi ginnaaw seen jëmm yi ca joxe seen bopp sacrifice boobu ngay def may def keneen def mooy dajaloo doon li émergel réew émergence du ci ay làmmiñ ci ay ay sacrifice personnel la sa gis nga mbir dalay jaral ak lu mën a doon waaye nag nga teg ko ci yoon teg ko ci yoon bañ ci wut bës bañ ci wut tur et cetera parce que aussi réew moom loo ci mën di dégg ay yoon dafay war kon ne sax di am ñëpp di wàccoo ak yoon yi c'est-à-dire amul kenn ku war a doon un intouchable muy man di yow di keneen loolu moom bu ñu ci juboo pare nag les gens qui se donnent dans les secteurs bu ñu nekk muy le journaliste di l'enseignant di vraiment le ministre bi nekk ci postam ak l'agent bu ñu dénk wàllu développement local ku ci ne mais nga def ko un sacerdoce sa nit xanaa war nga sax yow vingt 24 heures boo demee ba laata ngay tëdd nga dugg sa ruq mën a kan ne man lan laa defal sama réew wala lu ma jariñ waa koñ bi tey wala sama waa kër xanaa nit war nga am njariñ nag nit day jariñee